la, la résidence Mame Cheikh Fall hmm? résidence euh, Mame Cheikh bi nekk fii ci Mbacke Kajoor yaatuwaay bi ñoo ngi ko xayma ci benn hectare ëmb na nag euh, ay bërëb yu bëri lu ci mel ni euh, daara Serigne Mamor Anta Sali Mbacke mi nga xam ne dañ ko jagleel lii di tuut tànk yi ngir ñu mun ci jàng li nga xam ne moom mooy alxuraan ak lépp li ci aaju jëm sax euh, ba ci xasida euh, ku tedd kii di Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul tout tànk yooyu tamit euh, dina leen tàggat ci ay métier ba suñ noppee rek ci seen njàng ñu mën a am ci lu ñuy jàpp ngir suturloo ci ci biir résidence bi tamit am na bërëb boo xam ne bërëb bu ziyaar la foofu la Cheikh Ibra Fall jébbal woon ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul lii yëpp day bokk ci li nga xam ne moom mooy patrimoine taarixu murid lu jëm nag euh, ci wàllum gaawte li nga xam ne moom mooy liggéey gi lépp rek moo ngi aju ci farlu taalibe yi jëmb ci jullit yi ku nekk rek su si defee ñaqam ak dooleem li nga xam ne moom mooy liggéey bi dina gaaw te man mi daal am na njort bu rafet ne liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko fii du yàgg ñu jébbal ko ku tedd kii di Cheikh si Mokhtar Mbacké. en